Assalamu alaikum ndar ma ni tey émission bu bees émission bi moy sortie ak dañuy n'importe quel artiste comédien nga musicien nga danseuse nga wala danseur nga wala kat sabar nga doon manam ci walu art dañ lay dem la ba loolu mooy biiwu li nga xamante ni mooy sorti ak ndaanaan yi tey ji nag suñu première émission bi ñu ko defee fi nga xamante ne mooy maison du quartier lan moo fi xew nuit théâtrale moom moo fi xew maanaam ñi nga xamante ni mooy les amazones

gars comme nous ma dit, ko waxee woon li mooy Nous ak ndaanaan yi ñu ngi fii nga euh, fait maison du quartier bi fekk train de euh, jigéen ñi nga les de

macha allah kii nag sama càmmoñ moom ñëpp xam nañ ko macha allah moom mooy Fassène Mbaye di doomu Baye Diarra moom maam Diarra ñoo bokk ndey ak Baye waaye lépp rek ci aar bi la lépp rek ci ngéwël bi donc ñoom leen fekk si woon ñoom ñoo organiser li nga xamante ni moom mooy euh, nuit théâtrale bi dama daal di jox nday gay mu daal di présenté wu acca Ndeye Gaye waaw maa ngi tudd Ndeye Gaye dëkk Diamaguène. Euh, nuit théâtrale bi lan moo lan moo tax ngeen organiser ko. waa nuit théâtrale bi. Euh, kaf leen ko jëlee ak foo parce que école mooy waaj a tijji defuñu ko pour wut si xaalis defuñu ko tamit pour wut si dara dañ ko def pour jàppale xale yu ndaw yi nga xam ñoo nekk ci gox waa ndeysaan dégg nga nee na dañ ko def ngir sukkali bi ngir xale yi ree defuñu si ngir ut si xaalis defuñu ko ngir dara dañ ko def uniquement pour le plaisir parce que ñoom ay artistes lañ dem nañ ba sentir ni ñoom euh, toog nañ banque seen loxo defatul dara loolu métti leen ñu jugaat relancer waat seen bopp ngir dekkal li nga xamante ne mooy aar bi nga xamante ne moom moo nekk fii si Diamaguène Fassène Mbaye ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay Birame ça waaw dañuy laajte bis bi tey yaatu na ñëpp ñëw nañ wuyu si leen dëggkat yeeg fecckat yi ñëpp ñëw nañ donc euh, euh, lan moo tax ngeen ngeen gën a organiser mbir mi. waaw Birame bu ma weesoo loolu yëpp ku ne xam na ni Fassène dafa bëgg xale. waaw ba tax na li nuy def nii wutuñu ci dara dañ koy def rek te tax xale yi bëgg ñu génn ngeen reetaan loo leen barki Serigne Saliou buñ ko defee kenn ñëwu sax yow xam naa ne am nga xolu def ko ba mu neex barki Serigne Touba moo tax ñu ñëw def ko daal mais ñi ngi sant ñëpp di sant ñoom Ndéla ñoom Ulay ñoom ñëpp. waa ndeysaan nee na xale yi. dafa bëgg dundal quartier bi ndax xale yi xale yi amuñu benn loisir ah, demuñu fenn donc balaa école di ubbi ñoom ñu organiser ko ngir bëggal xale yi yaakaar naa ni fii mu ngi toj kon dañ leen di bàyyi ñoom ci organisation la ne ñu daal di dem ci mbir mi gis ngeen ci kaw scène bi artistes yaa nga fa kon tey fii moom dana neex dana saf acca ñu dem Ah, eh, eh, dama ni soxlaatuma sa baat ba ma la ko waxee yaa ma gëm a jox defal nag defal nag man dong aw ma fi doxukaay maam laay am na doxukaay nga laay am na doxukaay Moussa Ndiaye am na doxukaay ba si Pape Beye sax am na doxukaay. Pape Beye amul doxukaay. ah voilà yow daal lii may wan ni sa ñàkk maalu daal lii kon daal yow da nga daan def ñu lay tuut fii di la tuut fee di la tuut si diggante du loolu de bëgg def sa bànneex donc moo tax ma wax Pape bi. ah bëgg def sama bànneex rek moo tax ngay ñàkk a Pape bi ah Pape bi suxkaay ah. waaw jërëjëf yow mii baal ma soo bëggee ma baal da ngay naan ñëw fóot sama kàddu gi dama bëgg dañ di muu ah kaw. gis nga yow ku xamul pour saa yi la buur dee du ma sa mbaam te du ma sa jaam dem. comme ni ma leen ko waxee rek yaakaar naa ni fii ci maison de quartier bi tey du yomb ndaxte ñi nga xamante ne ñooy tëggkat sabar yi ñoom ñoo ngi nii di xamante ni ah waaw ñoo yore sabar yi ñoo ngi tëgg ndeysaan mi ngi jolli min maa ngi neex ba dàq neex waaye nag comme émission bi maanaam ni mu tudd mooy sorti ak daanaan yi ñu toog ñi ñëpp ay artistes lañ tey danoo ñëw fii ci maison du quartier bi ah daal di nag wuy si ñi nga xamante ni ñoom ñooy sama zone de Diamaguène kon sama gars yi atte leen ñëw leen dem ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen jaajëf waay waa naka mu tur bi naka la. Mbaalo Mbaye. ah ki mooy Mbaalo tëkkat sabar bu mag bi waaw loo gisee bis bi. ah bis bi moom rafetlu nañ ko torom ndax lii dafa doon lu lu rafet si si jàmm ngeen nii gars bu vacances jotee xale yi ñëw fii passé fi seen vacances moo gënoon ñuy def leneen parce que mën mënoon dem feneen di gaañ seen bopp wala ñu nekk si mbedd di wér mais lii moom dafa doon lu rafet lu nañ ko torom ñun nii di ay artistes nekk si koñ bi. merci merci dañ fi ñëw nag dajeeg fekk benn ndaanaan bu mag macha allah ñu koy wax Adama Coly Adama Coly ñëpp xam ka maanaam euh, waxuma sax ndar waxatuma Sénégal dafa jéggi frontière kii mooy Adama Coly mooy borom Sen TV borom TFM macha allah rabbi ku caa gërëm na ko xam na li mu mënee ci biir ak ci Ada Coly ak xale yi Ada Coly ak mag ñi Ada Coly ak ñëpp Ada tey waa Saint-Louis TV ñoo ngi lay nuyu di la di la ziar ci bis bi nga xamante ni euh, moom la moom moom lañ fi teew ñuy def nag émission boo xamante ni mooy sorti ak ndaanaan yi di seeti artistes yi di waxtaan ak ñoom seen biir ak seen biti ak lu nu jotee lu nu gisee aar bi aada ñu lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay biram di la nuyu bu baax di nuyu waa Saint-Louis TV. sama yu baax yi ma leen di bu baax a baax vraiment di leen sant di leen gërëm ci initiative bi biram waa ndeysaan aada tey tey lan nga yëg sa yaram ci bis waa naay ah, sax man moom vraiment man man man boo wootee ci bopp koñ sax damay ñëw toog seetaan ndax li ñu am yëpp tey fii lañ ko jëlee ci yu mel nii la jaar tey ba àdduna commencé ñoo xam kon nag tey bu ñu xew xewlee lu mel nii ñun dañuy ñëw toog dañuy ñëw jël suñu sees toog ndax mën nañ fi gis lu ñu jëriñ mën nañ fi gis ku ñu jëriñ mën nañ fi gis ku ñu soxla ñun mën nañ fi gis ku ñu soxla ñun waaye ñun tamit mën nañ fi gis ki nga xamante ni soxla nañu ñun moo waral suñ déplacement. macha allah merci. Modou man sa

modo ndeysaan euh, Mokki ndar Saint-Louis li indi ci émission sortie ak ñi nga nga euh, ci diwanu ndar ak li donc sortie émission bu ñëk ci émission bi ñu défendons maison du quartier bi ànd sek ay artistes yo xamanteni ay artistes yu jégg macha allah jeu que théâtre yi xam nga def nañ ba mu baax ñi ngi remercier ñëpp ah di sant ñëpp ñi ñëpp ñi nga xamante ni nañ tey jii euh, ci bis bi euh, ba mu ba mu ba mu ba mu ala dawme euh, ki nga xamante ni moom moo yore nekk ci caméra bi ñu koy wax koy wax mandiaay moom mi nga xamante ni moom mooy jinne caméraman yi ki nga xamante ni yor lumière bi macha allah mooy wëz ak ki nga xamante ni allah émission bi bul taaroo moom moo ko muy Cheikh Niang ak Thie ñoom ñëpp ñi ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen bëggee comme nii la saa su dañuy ñëw ak yéen ci yeneen i fem yu bees yeneen amam yu bees si yeneen i gis-gis yu bees fii rek lay xewee si seen Saint-Louis TV ñu ngi leen di jox daje ba beneen yoon incha merci beaucoup.